tuumal waaye nag dafa mel ni adversaire yi Ousmane yi dañoo bëgg a jafandiko ci lii nga xam ne mooy li Mame Mbaye Niang di toppee Ousmane Sonko yéen kay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba desal tey la tey diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ci lu jëm ci yu Prodac yi yi yi daal kay gi di ko di nee na Ousmane Sonko ñàkk na benn avocat ndax avocat maître Ousseynou Fall moom du bokk ci àtte bi ndax dañu ko daal di suspendre bi nee li ko di Pape Mohamed Diop mi nga xam ne moo yor dossier Prodac bi moom moo bind ab plainte kuréel gi ëmb avocat yu Sénégal ndax nag fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars wi ñu génn ca tribunal ba kii nga xam ne mooy maître Ousseynou Fall ak àttekat bi di Pape Mohamed Diop dañu doon piccoo ak di fa mbaaloo ginnaaw piccoo mbaaloo googee nag ci la Pape Mohamed Diop daal ca kanamu ordre des avocats kii nga xam ne mooy maître Ousseynou Fall daal nañu koy suspendre suspendre googee nga xam ne moom lañ ko def nag ci vox populi Ousmane Sonko moom nee na d'accord ci di ko ñaawlu bu baax a baax ndax nee nañu dogal boobee nga xam ne jël nañu ko dañoo a néewal ñoo koy layal ba tey ci journal bi moom Ousmane Sonko na mu ko jàppee mooy ak parparloo goo xam ne bâtonnier bi ak ordre des ngi koy def ci mbir mi yéen kaay gi nee na am na beneen avocat bu Ousmane Sonko Juan Branco mi nga xam ne ma nga jóge woon ca diwaanu France ñëw ci Sénégal ngir nag layal Ousmane Sonko waaye bi mu wàccee ci aéroport international Blaise Diagne dañu ko wax na ko jëlaatal sab saak maanaam yiigaatal ci roppalaan gi delluwaatal ca France ga nga jóge woon journal bi xëy tënk kàddu yëpp nee na avocat bu Ousmane Sonko bu jóge woon ca diwaanu Paris la France dañu ko daal di refourlé yéenekaay gi de la Témoin xëy di ñu xibaar naan ñu tiit gu rëy jamono ji moo am ci diiwaanu Ndakaaru ndax bëri na ay banque yoo xam ne dafa daal di tëj yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu procureur général Assane Ndiaye mi nga xam ne moo nekk ca tribunalu Thiès sa Diourbel ak ca diiwaanu Mbour démb daal nay wax ne lu toll si juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne teg nañu leen loxo ca diiwaanu Mbàkke ajjuma fukki fan ci weeru février mooy kere ba Ousmane Sonko na dana ñëw Mbàkke moom procureur général bi daan nay wax ne ñi nga xam ne jàpp nañu leen bëri na loo xam ne yàq nañu ko journal bi ji kaso yi fees na jàpp gaa ngi mel ni tulleeg màlle yéen kaay gi nee na procureur général bu Saint-Louis moom nee lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñett jàpp nañu leen jamono ji ñoo ngi ci kaso yi journal bi di Walf Fadjri xëy duñu ñu en tout cas ambade sall tey ji ndakaaru soo moytuwulee nar naa tàng journal bi na ma ko tuddee ca mu njëkk ma mooy Dakar sous haute tension yi dañu leen gi di Sud ko di Sud Quotidien nee na gaz maanaam ci buntu makkaanu siège PRP journal bi nee na leader yi tey jii woote nañu li nga xam ne mooy am manifestation yéen kay gi de la témoin xii duñu xibaar yi nga xam ne ni ki démb maanaam waa yeewi bëgg nañu ko amal ci diwaanu Dakar loolee dañu ko mujjee gàntal ndax ñi nga xam ne ñooy takk der yi dañoo confiné ñi nga xam ne ñooy leader yi journal bi di direct news xii duñu xibaar nañu ni ki démb am na benn caméraman wu mën boo xam ne ab oto moo ko mbëkk maanaam caméraman bu jigéen bu tudd Yacine xam ne ko mbëkk jël ko évacué ko yóbbu ko hôpital principal yéen kay gi di Le yor yor xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci Ousmane Sonko woolu gi nga xam ne moom lañ ko woolu loolee tax na ndakaaru njaay jël jopp demul dikku la maanaam dafa tagg témbe yéen kay gi nee na lu jëm ci wàllum école yi ak université yi dem nañu vacances banque yi tëj nañu transport public bi taxaw na jamono ji entreprise industrielle yi fermé na moto jakarta yi tere nañ leen ñu dawa yéen kay gi di leen foo xëy di ñu xibaar naan ñu coalition li ñu bëggoon niki démb ci diwaanu ko mi la ñu fa bëggoon mën am nañu ko ndax bëri na ay gox yoo xam ne niki demb amal nañu ay marsa coalition yeewu askan wi ñoom nag nee nañu duñu nangu ñuy sacrifier Ousmane Sonko sa diwaanu Ziguinchor démb coalition yeewu askan wi ñoom amal nañu fa mobilisation bu rëy ca diwaanu Kolda coalition yeewu askan wi démb ñoom tim amal nañu fa mobilisation waaye nag nee nañu duñu nangu benn yoon ñuy sànk Ousmane Sonko maanaam liquidation Ousmane Sonko waaye yeewi ca diwaanu Kolda démb ñoom nee nañu duñu ko nango waaye waa Sédhiou tamit ñoom loolu la ñu wax ndax ñoom démb ñaawlu nañu bu baax a baax jàpp gi nga xam ne jamono ji ma ngi mel ni tu tuleeg màlle journal bi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jàppante yu métte métti am na fa waaye leaderu yeew a bloqué journal bi di 24 heures ñu xëy fekk fa Nicolas Normand mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon ambassadeur bu France ci diwaanu Sénégal nee na coow li muy bëri bëri Ousmane Sonko mën naa nekk juróomeelu président bu réewum Sénégal yéen kaay gi di direct news xëy mel ni luy ñaan siis bi ngir nag mu àtte coow li nga xam ne moo dox diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ndax journal bi li mu gis mooy askanu Sénégal ñoo bëgg a xam dëgg gi fan la fare waaye tamit pare ci mbir mi maanaam gars yi dañu see mara journal bi di Direct News dafa gis ne saa sunu convoqué Ousmane Sonko li nga xam ne mooy économie réew mi maanaam du dem céng du dikk mbay laara dafay taxawa ñi nga xam ne ñooy commerçant yi duñu liggéey banque yi dañuy tëj liggéeykat yi duñu dem liggéey takk ndeer yi foo xool gis leen fa avocat yi Ousmane yi am na ñetti yoon yoo xam ne sàkku nañu renvoyer procès bi lan moo nekk ci ginnaaw la journal bi xëy di laaj nee na en tout cas li am lool a journal bii de la point nee na en tout cas li am ba des daal coow li dox diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang tey jii la jour de vérité bi la dëgg gi di feeñ waaye nag ñi xam ne ñooy takk derrière maanaam jël nañu seen matukaay pare nañu ngir xeex journal bi du Source A nee na Ousmane Sonko démb gisuñu ko sax ci buntu këram gars yi doon nañu ko gis muy génn di piccoog mbaaloog takk derrière waaye sax démb loole amu ca maanaam Ousmane Sonko kenn tegu ko bët yéen kay gi de Les na Mame Mbaye Niang yokku na ndax maître Olivier Sur Mame Mbaye jël na ko Ousmane Sonko nag moom la mu am ci avocat ëpp fanweeri avocat yéen kaay gi nee na avocat bu nekk am na fukki si simili ak juróom ngir plaider journal bi nee na audience bi mën naa durer ñaari fana maanaam 48 heures yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy bind ci partenariat état secteur privé journal bi nee na njiitu réew di président Macky Sall jamono ji li mu bëgg mooy may ab audience ñi nga xam ne ñooy patronat bu Sénégal waxtaan ak ñoom amal ak ñoom ay concertation yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Bira Sène mi nga xam ne moo jiite CNG daan nay wax ne Ama Baldé moom na Gris Bordeaux lay njëkk a bëreel bala muy bëree ak Modou